xoolee seen xar kanam doo ci fekk leneen lu dul fierté ñu jël leen dal di leen tabb ndax seen liggéey bu mucc ay ñu dal di koy mérité waaye ñu jël leen wone leen ci àddina wërngal këpp ba noppi dal di leen sargal ci loolee le président de la république dal di jiital lii di science ak technologie ci remise des prix bu concours général ci atum 2023 bile nous devons privilégié dañoo war a fulaal li nga xam ne moo di jàngale bi ci wàllum science ci technologie ak ci mathématique waaye itam fulaal li nga xam ne moo di formation professionnelle nga xam ne mooy ànd ak éducation. ci loolee technologie bi nga xam ni day wéy di jëm kanam bu ñu sukkandikoo ci chef de l'État bi moo ngi xam xamle ni kat loolu am na ay jikko yoo xam ne méngoowul ak suñu société benn yoon. nous vivons au quotidien bés bu nekk ñu ngi gis ay ñawteef yoo xam ne ci technologie bi lañ koy jaaralee bokk na ci jàllale ay xibaar yoo xam ne ni du dëgg. wala di manipuler nit yi wala di ci wax ay waxu haine ak violence. la manipulation la haine le radicalisme et la violence. fête de l'excellence bi dal di nekk benn prox ndoll boo xam ni moom daf ci dal di profitoo ngir rek ñaawlu jàngalekat yi nga xam ni dañuy influencer élèves yi ci wàllum violence ndax école ak sax université nekkul benn yoon benn arène boo xam ni dañ fa war a xeexee. C'est très grave qu'un enseignant. cër bi nga xam ne jàngalekat bi am na ko ci élève bi warul tax mu koy defloo yenn ñaawteef yi. di ko xiir ci violence wala di ko defloo ay manifestation violence ak ci anam bu mu mënti doon amul place ci société bi rawatina ci école bi. la violence sous toutes ses formes n'a pas de place dans la société encore moins à l'école. concours général bu atum 2023 bile ñetti junni. ak ñeent fukk ak ñeent ci ay candidats ñoo dal di bu ñu ko méngalee ci atum 2022 bi nga xam ni ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer yu toftal ñaar fukk ak ñaar ñoo ci daloon di inscrire mu mel ni rek lim bi yokku na lu tolloog ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci loolee téeméer ak ñeent fukk ñu dal di leen siy tabb juróom benn fukk dal di siy am ay prix waaye ñeent fukk ak ñeent dal di siy nekk ay accès ñoom ñëpp ñu dal di leen a tabb fëskee ne def si ñoom savoir faire ak lii di être.